allahu akbar di jë baax ak man seet bi laa soxla ci yàlla na dimbali rek daal seetal ma wax leen lan a xew ma seetu ramlu képp ku ma seetal lu si ëpp sax dama naan mës naa la seetal te gisuma la yàlla bu mu la seetal candee la ak ulay anta sëriñ bi man jàppoon naa ne seet gis naa ko rek la yem ak waaye it kon seet bu mel ni naka te am na ci àddina ci épisode bi di ñëw mbokk yi xaaral ma tegal la vidéo bu am solo lii may ramlu boo ko mënee partagé a koy ñu a xam man mii boo gisee nit ñi di ma topp ci wàllum seet man seet bi moom laay seetee seet bëri na lool waaye bii daa bokk seet yi gën a wér seet yi nga xamante ni moom la mag ñi daan seetee mm-hmm. lii mooy ramlu tomb yi moo lay wax nit ki mhm. ak i jafe-jafeem. tomb yi mooy wax nit ay jafe-jafeem mooy wax nit ki mhm. mhm. ay gàllankooram lépp loo xam ne nar na kaa dal. waat naa ko ko. seet bi képp ko ma ko defal ma gis la. ba gën a soxla nag ma ki nga xamante si nii daa gëm ni seet amut oh. ndax am na ñoo xamante si nii ay sénégalais lañ mais yoruñ jukkee sénégalais parce que ñoom dama bëgg def seen bopp ay tubaab tubaab yi sax dañuy seetlu hmm? tubaab yi sax dañuy seetlu. kon seet ku ku ko wedd rek mm-hmm. da ngaa seet bi mais seet bii ku ma ko seetal mm-hmm. da nga gëm ni seet am na tomb yi moo lay wax mm-hmm. say mbir ba génneel la sa parax sëriñ bi seet bi di jë seet bi ni ma koy seetee naa xam sa tur xam sa tur yaay su ma ko jëlee am su ma tibbee suuf si wax li may wax ba teg ko ba tomb tomb yi may tomb naa xam kii lan may jafe-jafeem